waaw loolu d'abord dañ koy xaw a naqarlu euh, parce que man vraiment dem naa seeti naa ñu bari ci suñu liggéey waaye li ñu gis mooy wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ne defuñu dara te ñu ngi foofu li tax defuñu dara mooy li ñuy wax mauvais moment wrong time wrong place mauvais moment mauvais mom mauvais endroit moment mauvais endroit maanaam yàlla def na nga nekk ci bërëb. jamono ba mu fa nekk waroo foo nekk ndogal ñëw dal la parce que dañ di jàpp ay nit ne la jiix yóbbu gis nañ sax ñëw toog ci tànganaar di lekk mu am ku ñëw raax leen nekk takk der la ñu toog ci seeni waxtaan balaa waxtaan bee jeex mu woote ñu ñëw jël ña fa newoon gis nañ loolu gis nañ ñoo xam ne géej lañ jógee takk suuf demoon fu bëli ay waxambaane lañ dajeeg ñeneen yi waxambaane ñu ne ñu ne yéen da ngeen doon manifester ci ngeen bokk bu waaye ba pare beneen jalgati bi ci ne bi ñuy gisaat irrégularité laa ko mën a tuddee mooy que ne comme nit ñëpp xamuñu seen ak ak seen yelleef ñu ci bari du ñu ne damay xaar avocat pour mu ñëw teewal ma def sama déposition donc du dañu dañ leen dañ lay wax ne yaa def dara nga nga signal fii comme ça ñu mën a avancer loo sa dossier alors que ça doit se passer, passer comme ça te ñu ci bëri des fois du loolu nga def gis na man fekk na en tout cas atté yu bari yo xamantene ne nit ki lay taxaw ci kanum procureur procureur ko nangam nangam muy xolé nan lu xew loolu fan kan man rier parce que liñu bind yépp gis ci bopam et je pense que l'exemple le plus patent c'est l'exemple d'Aliou Sané qui l'a dit ouvertement devant tout le monde chef d'inculpation ñu ko don jox né mom la def bindal koko, dakar da kaa bañ signer parce que xamna ak ak fam ñu ne ko comme do signé wa ñun yóbbu nañ ko ci procureur ba mu démé ba taxaw ci attekaay bi ba mu ko laajee daf ko né lutax tax signé woo mu ne ko signé woo parce que li ñu fi fii méngoowul ak liñ liñ liñ né mom la def la preuve j'ai la vidéo parce que comme lañ ma xam ba ma génnee dañ ma photo filmé ma bo démé ci internet di nga gis juge bi ne ko andi ko mu ci clé USB jox ko mu xol ko mu ne ah nga deug li kay mënu ñu la toppee léeg-léeg li mais ki nga xam ne jangul xamul ba pare un phénomène bu est très que Il dañuy def un euh, ben chef d'inculpation fourre-tout c'est-à-dire dañuy jël ben groupe rek ñu né yéen ñëpp euh, manifestation à une truc euh, manifestation interdite appel à insurrection etc cetera pour tout le monde alors que en en réalité dafa y a une affaire spécifique pour connaître les circonstance ñu la parce que nous aussi un rôle qui rôle ci suñu investigation pour faire des recoupements du avons leen rôle parce que l'officier de police judiciaire voilà effectivement on a évoqué des cas de torture par exemple Nous avons des leen dañ leen euh, fitnales pour nous pour dénoncer Nous avons des des pour nous minute. nit wala mu tu vois y a un phénomène aussi bu ci des te ñemewuñ dem hôpital parce que japp nañ buñ demee hôpital si si c'est lié à des trucs de affaire wu bal ah procureur bi dana def enquête am te bu boobaa xëy na mun mun nga ci mën la see japp donc lool yëpp pour man dafa japp dafa dafa nek des des choses yo xam on va dé on doit décanter et décrisper la situation pour nit ñi mëna am dal euh, nit bokay wo ci waxtaan ci jekk ak teraanga pour que.

waye nañ ko lal ci kaw deug nañ ko lal ci kaw yirmandé parce que xalé bo xamante il n'est pas majeur xamul dara il est dans l'euphorie il sait même pas ce qu'il fait il peut faire des bêtises ñu mën ko ko bal parce que man gis na tribunal ñu bari ño xamante liñ leen di jappé ay ben cornetu yamba suba ñu mu waat ne monsieur le juge bi lay dootuma ko defati nangam nangam ñu ne ko wa d'accord dañ lay defal ben sursis trois mois après way ñew taxawat ci kanam mané ko yow xamé na la yow ya fi ñewon ki nga né tuum naa baal ma nangam sangam du won yow mané wa nga ma rek donc ça veut dire que amna na xana fay toll du répression bi mo koy fajj du denc kaso bi mo koy fajj mais on doit aller en profondeur lan moy pousser nit ki muy def li limi def di ñaawteef ñaawteef nit bo xamantene dafa wote bopam ci ngëm-ngëm gëm yalla ya xam chrétien nga ya xam Euh, euh, musulman nga bu fekkee yaa ngi wootee sa bopp ngëm-ngëm rek ñaawteef munoo ko nangu te boo amee kuy def ñaawteef mu jege la wala mu dëkk sa kër doo ci ànd